mais mais Doudou Ka xam nga sànq maa ngi lay wax ne da ngeen euh, mettre en nu les données personnelles de de Ousmane Sonko euh, jël nit jàpp ko nangu ay pièces nangu ay bagages am euh, wane ay étaler ses pièces nangu ses téléphone ñu jékki-jékki di dégg benn faf mbir mi dafa mel ni ça s'est retourné contre vous parce que xëy na li ngeen gis ca téléphone ya am na ci loo xam ne arrangé wu leen mu am de rumeurs euh, yoo xam ne dañ naan waaw am na ñenn ci bokk nguur bi ñoo xam ne dañ nekkoon en contact avec Ousmane Sonko ñu naan ñii euh, jox nañ leen jox nañ ko xaalis ñu naan ñii dañ ko doon informer euh, mu doon affaire boo xam ne tamit mu ngi bëgg a créer benn malaise benn benn benn malaise yow da nga portable wala benn malaise yéen a ko génne. <laughs> ñan c'est-à-dire yéen yéen a koy seen seen seen biir. Euh, dañ koy commenter voilà di informer ay journalistes di informer ay ah. activistes li leen naan lii moo nekk ci téléphone bi euh, kii ak kii yow nga nekk doomu Casamance mu am mbir moo xam ne danga koy yàgg assumer. da nga yàgg assumé ne yow doomu Casamance nga et au nom am na yoo xam ne yow doo ko doo ko def mu am ñoo xam ne ils ont été assez vicieux même pour di la ci tudd yow wala di xalaat ne yow di di xalaat di xalaat ne yow xëy na bu Macky Sall demee puisque nga nga retrouvé wu ak Ousmane Sonko ndax yenn a bokk Casamance lan ngay tontu ci loolu sam euh, euh, premièrement sànq yow yaa yaa ko tontul sa bopp sànq da nga ne Euh, euh, Abdou Sané c'est ça Abdou Sané dafa da gis benn page. moo ne y a une loi Doudou ne dafa am Doudou Ka ku fa jaar. muy ne ay ay ndaw yi Pastef la ñu juge bi da leen di da leen di jàpp tëj leen deux ans donc moom Pastef xam nañu ni loolu wax boobu Pastef ñoom xalaatuñ ko sax parce que ñoom ñoom xam nañu ni man ak ñoom dara bokkuñu donc bu dee euh, ñaareel bi waxoon naa ko fan yi si côté. si benn émission ma ne man ak euh, euh, Ousmane Sonko euh, on n'a pas seulement un différent politique national dans au niveau de la conception au niveau de notre projet pour le Sénégal ñun on a un projet président Macky Sall plan Sénégal émergent muy gis-gis un Sénégal prospère dans un état de droit Ousmane Sonko am beneen projet insurrectionnel projet euh, je sais pas populiste anarchiste d'accorduñ si ñuy mu nekk loo xamante ni man ak moom bokkuñu si gis-gis muy benn ñaareel bi ñu am différent local il est le maire de Ziguinchor ñëw wax lu nekk waa Ziguinchor su ma ñëwee damay def monnaie locale damay moderniser damay jox xale yi liggéey Euh, damay def lii Brock ba mu tuddee sa programme am liggéey si si Joola Brock tey ñu ma gis ni sama ville mi ngi dellu ginnaaw ñi ngi lakk kër yi ndaw yi ñi ngi ñi ngi ñàkk seen bakkan si xeex bu mu leen indi boo xam xamante ni suba suy def leneen duñ ko fekkee euh, commerçant yi mënatuñu liggéey ja euh, sama mbokk sàmm yi ñu ne mënatuñu dem jënd ay nag si àll bi indi ko parce que dañu ragal seen sécurité muy indi sama sama gox euh, muy Ziguinchor mais affaire bi métti ma nit écoles yi primaires yi ñu ñu leen di ñu leen di ñu leen di taal euh, mu métti ma te mu nekk loo xamante ni man ak moom nekk na suñu deuxième différent profond parce que man awma dara lu dul Ziguinchor man sama bàpp sama yaay waa Ziguinchor la donc man awma dara lu dul Ziguinchor euh, ñeenteel bi mu ñëw ba suñu biir famille de séparé ñii ñoo ànd ak Duruka ak makisal Sall c'est les du village ñii ñoo ànd ak Ousmane Sonko ok ñoom ñoo kii doom kaas te ñu nekkoon famille uni man ak moom ñu nekk mbokk solo mbokk solo moom mu ne bokkuñu dara d'accord bokkuñu dara mais mbokk solo dafa am solo parce que ñun Sénégal ñëpp a bokk man sama demi frère koo xam ne sama doomu ndey la su nekkee mbokku deret Ousmane Sonko mais kon man suñ ma suñ ma laajee ndax bokk naa ak Sonko te man sama doomu ndey moom ak moom ñoo bokk deret man ma sama doomu ndey bokk nañu deret donc ma ne ko bokk nañu mu ne bokkuñu donc loolu la indi si biir famille bi disloqué famille bi ba nga xam ne ñii ñoo ñoo xam ne ñoo doon ànd ay génération léegi mu dagg ngir politique man ak moom ngir adversité politique ñeenteel bi muy yëfi xeet mu indi ko man Doudou Ka ñëpp xam nañu ni pël la sama yaay Diallo la sant sama papa sant Ka mais sama yaayu yaay ak sama yaayu papa ñoom yëpp ay joolaa lañu donc loolu noonu mu indi si Casamance nga xam ne man ësampul laa si joolaa may pël mu ne président Macky Sall moo indi mbokkam pour ñëw xeex seen mbokk di ma jaxase ak samay mbokk joolaay mu nekk lu profond loo xam ne man nga xam ni moom xam na ni maa ko gën a bokk si xeet boobu parce que man sama côté pap sama côté yaay si xeet boobu la ñu jóge euh, ñeent yooyu su changé wulee discours am man ak moom mënuñu am accord te mënuñu am relation donc moo tax suñ koy wax man foofu teg naa fa